responsabilité. le 12 ñu bari yëgoo ñu dem wuti leen lu ñu def moom euh, Ousmane Sonko moo ko doon wax euh, conséquence yi mooy dañuy dissoudre assemblée nationale dem ci élection législative euh, aussi beneen mbir bi mooy loi de finances initiale nan nañu nar a doxalee Sénégal bu nekkee dañuy dissoudre assemblée nationale. alors foofu tamit da ciy ciy baax ñu leeral. dañ ni par l' assemblée nationale de voter la loi de finances initiale. c'est le budget précédent qui sera reconduit. loolu kon leer na. maanaam assemblée nationale bu ñu amul assemblée nationale. budget bi fi Macky Sall bàyyi ak. Euh, dé ñu fi bàyyi. bu doon doxal année bi nga xam ni moo ko weesu xam nga la loi ne postule que pour l'avenir maanaam bu ñuy wotewaat loi c'est pour budget bii di ñëw. kon budget bi ñu fi bàyyi moom na ñu reconduire. Mhm. bu ñu ko reconduire en naa ñu am ay députés yoo xam ne bëgg nañ seen askan. Mhm. dinañ leen convoqué waat pour. rectifier ñu rectifier ko par une loi de finances rectificative. mooy mooy mooy nekkaat loi de finances initiale mais rectificative lay nekk. ñu doog a avancé. kon loolu lu loolu du problème loolu du problème mais lii problème bi rek mooy ñi ak ñan ñi ànd ñan lañ jàkkaar lool pour mën a doxal nañu wax ne dëgg un pléthore de presque de cent personnes boo jëlee HCCT. Mhm. jël au conseil des collectivités territoriales jël ñi nga xam ne ce qu'on appelle des députés inutiles. boole ko ak les les yeneen institutions budgétivores yi nga xam ne mooy dépendre ci institutions yooyu. nga gis ne franchement les le peuple sénégalais ne mérite pas ça. peuple sénégalais bi euh, Pape Matar man su ma jugee mbuur des fois di dugg Dakar. Mhm. de sama damay sama xol day day xaw day am ñeewantal. d'accord les sénégalais souffrent les sénégalais sont fatigués te ñi fi nekk ñu ngi def seen kéemtalaay kattan. Mhm. kéemtalaay kattan est-ce que xam nga am na si ministère yoo xam ne oto yi ñu yor di ko dawal. mooy ministre yi ñu ko yoroon maanaam du kenn ku ci am bu bees. Mhm. te ñëpp tàmmaloon nañ nguur gu bees jënd ay oto yu bees commencé di di di di di di di di jaabaa jonge commencé di di jàpp ni lépp noos la. am na ci benn ministre ma ma teer ma teer fu jeexal foofu am na ci benn ministre boo xam mhm. dama dem fekk ministère pour lu urgent lu ñu doon dox di ko di ko di ko dox pour askan wi d'ailleurs moo tax ñu koy dox mhm. ma ñëw fekk otom bi si condition yoo xam ma ne ko lii lan la mënu ma noo garage lay doog dañ ko doon pentiraat pour maanaam toxul sax di jéem a laaj nañ génn oto bu bees ak yooyu dafa nii écoutez lépp ñu man pour def ko dinañ ko def am na ci ñu koo xamante ne nii. Mhm. barki démb dañoo dafa envoyé délégation. délégation mu ñëw di jaale si dëj mooy sunu responsable boobu. Mhm. yàlla xam na ni ba ñuy dem ma leen di man maa leen déposé ba croisement Saly pour ñu mën a delluwaat kon nga xam ne ñu nekkuñu fi pour noos. nekk ñu fi pour pour séddoo xaalisu askan wi. alors ci loolu la ñuy dox nag. d'accord mais mais Sénégal bi ngay bi ngay décrire est-ce que attan na élection législative. pourquoi pas. <laughs> mais ñun bu ñu demee ci dissolution. parce que élection coup la. oui mais volonté la tamit. gis nga euh, élection lu mu nekk coup coup coup pour man jar na ko ne serait-ce que par respect au peuple sénégalais. d'accord Sénégal yi ñoom ñoo génn seen poche. d'accord ne Macky Sall ak lu aju woon ci Macky Sall dinañu abal. tout un système a été yi tout un système a été balayé et de façon historique yi nga ça restera gravé dans les annales de l'histoire oui. Pape Matar élection lu mu am coup am ku am coup je pense que jar na ko pour transparence jar na ko pour le peuple retrouver sa dignité jar na ko tamit pour ñu def réforme yi nga xam ni wax nañ ko askan wi parce que gis nga i waxuma la réforme am na sax ku ko tudde ne que il ne faut pas parler de réforme ou réforme il faut parler de reconstruction mm-hmm. te loolu discours boobu maa jël si Ousmane Sonko ak si Diomaye mm-hmm. juste après les élections de 2019 les deux safar là les élections de 2017 mu ni ji nga dans ce Sénégal là. Oui. tout n'est pas à refaire tout est à faire. maanaam la fi yàqu lañ fi defar lañ fi woote dañ kaa defar loolu defarul en réalité mu taxaw tout est à faire alors élection jar na ko parce que élection moo ñuy permettre. Mhm. d'abord ñu am assemblée nationale boo xam ne ni composé de députés. digne du peuple sénégalais. d'accord am ay députés yoo xam te ne ni au moins boo leen laajee lan mooy <laughs> eurobond. dañuy xam lan mooy eurobond. <laughs> d'accord mu am ay député yoo xam ne tey jii. buñ fa nekkee d'accord mais foog ñu avancer temps bi daf ñu xaw a. buñ fa nekkee nelaw leen ñu nelaw. oui wéeru leen ñu wéeru tàccu leen ñu tàccu d'accord jóg leen ñu jóg ñibbi leen ñu ñibbi yooyu député jeex na Sénégal <laughs> incha allahu à partir de la quinzième législature d'accord euh, ñu dem ci reddition des comptes yaa ngi koy wax sànq ba tey ñi ngi ñu gérer woon alalu askan bi jamono ji ñi ngi annoncé que ni la reddition des comptes euh, enfin dinañ ko lancé euh, déjà am na ay mesures conservatoires yoo xamante ni jot nañ ko jël ci ñenn ñi nga xamante ni jàpp nañu ni seen mbir foog ñu leeral ko balaa ñu génn ci réew mi boo demee si sunu projet bi ma andi nii man ba tey couverture laay gis yàq euh, livre rouge bi. composé de. ah waaw day leer kay nga may wan couverture. 273 pages. d'accord lii ay pages la. 273 pages. boo demee ci chapitre premier. oui. point 7 page 35. oui foofu la ñuy wax ci reddition des comptes. d'accord kon reddition des comptes ñu bañ ciy wax falaguñ ñu. te mhm. reddition des comptes. da nga koy mën a indi si si ñetti mbir boo bëggee bëgg bëgg nga mu am. benn bi il faut que ñu ñu def ce qu'on appelle le renforcement de la transparence à travers l'élargissement des compétences des corps de contrôle te corps de contrôle yi xam nga am nga OFNAC am nga cour des comptes mhm. am nga inspection générale des finances am nga inspection générale d'État mais daf si am beneen boo xam te nit ñi duñu ci bàyyi xel te foofu la élection pour répondre à votre question de tout à l'heure mhm. élection xam nga l' assemblée nationale li ñu naan lay contrôler l' action du gouvernement. kon pour wax leen ne la reddition des comptes il faut d' abord les organes forts et renforcés. beneen bi mooy. l' instauration de pôle financier xam nga lool sax avec la CREI gis nga ni ñoom gaawantu nañ indi leur pôle financier. Mhm. avec tout ce qu'il y a comme respect des principes des droits de l'homme et tout bi si des mooy le détachement de ces corps de contrôle de la de l' exécutif. Mhm. ñu mmh. permettre yi nga xam ne ñooy corps de contrôle. ñu paree seen rapport naam dinañ informer le chef de l'État déposer fa seen rapport waaye dinañ saisir directement dañ am possibilité la possibilité de saisir directement le procureur de la République wala le procureur financier. d'accord pour ñooñu tamit def seen liggéey maanaam yi nga cordon ombilical boobu boo ko daggee rek. Mhm. corps de contrôle dañuy am ce qu'on appelle les coudées franches am ay marge de manœuvre pour li li nga xam ne moo leen doon jatang di leen tënk. loolu day deñ pour ñu mën a jëm ca kanam maanaam lépp lu ñu def liggéey jeexital bi mooy justice bi am ca wàll. peuple Sénégal bi xam lan moo xew. alors. corps de contrôle. Mhm. reddition des comptes. oui mais mais nañu waxante dëgg Pape Matar. Mhm. doo ñëw taxaw ne il faut qu'il y justice sur terre il faut qu'il y ait justice dans notre république. Mhm. ba nga ñëw taxaw ne nit ki dénk nañ ko. 500 ñu gis ni moom. secteur bi ñu ko joxoon mu ngi sooxe. moom secteur bi ñu ko joxoon mën naa nekk santé mën naa nekk éducation nationale mën naa nekk ci mbay mi. secteur boobu delloo na ginnaaw mais nit kañ ko dénkoon li mu am ci patrimoine ëpp na 10 milliards nga ni loolu duñ ñu ne la secteur bañ ko joxoon xaalis bi ñu ko joxoon. am na sax ñuy romandaat ne am na ay détournement manifeste venant même de la part de ses collaborateurs nga taxaw ne duñ ko kii fii règlement de compte du fi am. il n'y aura pas de règlement de compte et conformément au discours du président de la république. yaakaar naa yooyu la njëkk a tenir muy il y aura pas de règlement de compte. il y une reddition des comptes par la justice. mais jàppoon dafa yéex jàppoon dafa yéex bu demee ba Ousmane Sonko di annoncé que ni am na ñu jot a rëcc bon en tout cas ñu jot daw génn réew mi ba sax ñu mujjee ci ay mesures conservatoires est-ce que jàppoon ni mesures conservatoires dañoo yéex. waaw xam nga lépp dañ koy teg ci respect des lois et règlements respect de la dignité humaine tey jii. Mhm. amuñu fenn fu ñu mën a jafandiku xanaa peut-être par la voie administrative. pour des raisons administratives et de sécurité. Mhm. ñu taxaw. ne telle personne mënta génn réew mi. loolu loi may na ko. may na ko ki nga xam ne mooy acteur mooy mooy le pouvoir exécutif. Mm-hmm. maanaam jël raison bi teg ko jiital ko. Mm-hmm. pour wax ne pour telle raison mënoo génn réew mi. Mm-hmm. te ma jox exemple bu ndaw. tey jii boo génn dem ba aéroport yor passeport diplomatique boo xam ne am na ko mu dal. yor passeport diplomatique boo xam ne dañuy Pape Matar ministre ministre des Pape Matar ana bañ sañ-sañ la am pour am passeport boo xam ne dañu cee ministre des sports wala ministère des sports hmm. mais loolu war nañ ko càmbaraat xool dans hmm. quelles conditions hmm. ci loolu autorité administrative bi nga xam ne moo délivré passeport bi am na droit confisquer passeport bi am na ci droit parce mën na def loo xam ne mën nañ mën nekk à son insu wa ilaa Pape passeport bi mais ba délai ba jeexee. Mhm. au lieu mu delloo passeport bi dafa continuer di ko utiliser. Mhm. loolu am nañ droit ne doo voyager ci passeport bi. Mhm. maintenant bu fekkee am nga beneen possibilité pour voyager pour leneen jaaral fi nga war a jaar. loolu benn la il faut tamit ñun tamit bu ñuy def loolu. ñu jiital le respect de la présomption d'innocence. mais jiital également le respect de la dignité humaine. moo tax. gaawantu bi c'est am na ñu taxaw naan dafa yeex ku ci nekk nag da ngay joxe sa avis am na ñu ni dafa yeex dañoo war a gaaw jàpp nit ñi mhm. mais man dama dafa jàpp ni mhm. mbirum leeral amul lu ci gaaw am lu ci xam nga ci am sa solo mooy ba ba muy jeex na dëgg ci feeñ alors c'est ñoo ñooñu noonu ñu tuumal wala ñooñu ñu jàpp ni ñoo def yooyu c'est vrai fois sa xol du neex ñu def fii lañ fiy def yëpp si si si si njombe mhm. nga gis leen tey ñoo dañuy ay conférence de presse maanaam di jaay askan wi xamadi ak ñàkk yar loolu moo tax damay comprendre peuple bi naan na gaaw mais incha allahu mhm. il ne faut pas confondre vitesse et précipitation d'accord vitesse et précipitation précipitation moo baaxul te et puis il ne faut pas créer euh, euh, euh, refaire les erreurs de l'ancien régime sur la CREI maanaam ñoom dañ ko defoon outil mhm. de règlement de compte personnel d'accord pour xool ñi ñu persécuter et puis ñenn ñi tamit ñu fexee bañ leen exercer un chantage pour ñu mën a transhumer ñun doxuñu si loolu transhumance transhumance dañ koy bannir ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais justice moom dina am te képp kuñ ciy àtte. wala di la mettre devant la justice. ou devant vos responsabilités. Hmm. dinañ ko def en tout en respectant. sa dignité humaine le principe de la présomption d'innocence et de la dignité de la personne concernée. d'accord waxtu bi jeex na tàkk mais du ñu yëg jotaay bi te du ñu eh, ñëw ci ñaari coow yoo xamante ni ci seen. Euh,